بسم الله الذي القرآن قد نزل بالبداء وأرجو sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen sàkku xam-xam ba siiw sàkku xam-xam tàmbalee fi nit ki juddoo ba fi ñu koy suulee ci bàmmeel imam Abu Hurayra nee na radiallahu anhu ci saxaaba yi la bokkoon yonent bi mësula dañ di ñu jàngal ay xam-xam di ñu yee di ñu waar ba kenn ku ne ci ñun bu picc naawee sax mu am ci xam-xam bu ko ci yàlla xamal boo xam ne keneen du ko xam jullit ñu njëkk ña jaaroon nañ ci yoon wu jub woowule gannaaw gi nag la yox yoxi ba dellu gannaaw ba féete gannaaw ba dem ba seen diine di leen bëgg a rëcc te bu leen rëccee ñu ñàkk àddina ñàkk alaxira ndax xam ak jëf lu yàgg-yàgg lu la ñàkk xam mooy njël benn bi jëf moo ci tegu mu mel ne garab ak meññetam garab gi mooy xam gi meññet bi mooy jëf ci kon garab bu meññul du am njëriñ xam buñ ko jëfewul du am njëriñ xam ak jëf nag moo waral lépp loo gis moo ko waral xam nag mu ngi tàmbalee ci bismillah turu yàlla waaye tàmbalewul ci bismillah ilmi loola tax waa sowu yi yàlla sànq leen bi ñu toppee science te amuñu conscience jëf nag am na yu bari yu muy dikkee bu seetee ci xadis xam ne jëf ji mu mën a doon doomu aadama mën na caa jaamu yàlla sallallahu alayhi wa sallam am na ci bàkkaar yi bàkkaar yoo xam ne dara bu nu koo loo dugalee sa sa bopp ak sa njaboot ne kon loolu jaamu yàlla la jihaar la jihaar ak jaamu la waaye li gën ci jëf yi moo ngëm gannaaw ngëm jihaar mu ne wala takunu kalladina utul kitaab min qablu fa taala alayhim lawadu fa qasat qulubuhum bu ñu nekk mel ne gaa ñi nga xam ne dañ leen a joxoon téere bu jógee asamaan mu la ràññal leen leen dëgg ak seen leeral leen yoon wi ñu war a jaar waaye yàgg gi mu yàgg ci ñoom ñu miin ko ba yàq ko tax seeni ñu dem ba seeni xol wow ndax nit day juddu ci lislaam di doomi jullit gëm ne yàlla am na gëm bis bu mujj ba jëfi topp yi mu juddu fekk ñi di ko def mu ànd ci ba mujj du dara ci moom lu dul aada du amuk teewlu la taxoon ñi sàkk ñi santaane jëf ji du ca ànd muy ay yënguy kese rek bu ko defee mu mel ne jëmm ju amul roo loolu mooy indi xol bu wow ba jëf ci dootu jëriñ nit ki loolu lépp li koy indi mooy fàtte ëllëg topp adduna te adduna ak ñàkkam solo toll na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma dunya fi al-axirati illa kama yaj'alu ahadakum isba'ahu fi al-yammi fanzur bima yarji'u adduna ni mu demee ak alaxira mu mel ne nga fab sa bi sëpp ko ci géej mu ne seetal liy tax ci sa baaraam ni mu wuuteeg géej gi noonu la adduna wuuteeg alaxira te àdduna li muy ñàkk ñàkk solo bépp xéewal bi ci nit xéewloo daañu ko ko laaj ëllëg dana wax na mu ko jóge ak ci lu mu ko sànq yaramam mi dana wax ci mu ko ràppal dundam gi dana wax ci lu mu ko jeexal naka noonu mépp musiba bu ko dal naka noonu bépp métti bu ko dal wala ñàkk bu ko dal wala naqar wu mu doon ak lu mu mën a doon daañu ko laaj ëllëg bu fekkee ne muñ na ko ngir yàlla xam ne yàlla ak ko teg dana faxas bàkkaaram te dina ko indil texe dana ko indil yowmal xiyaam yoon yoo xam ne kenn du ko natt kenn du ko peese kenn du ko wàññi nee ñu bu keroogee bu ñu janloog ñi yàlla musibaaloon ci adduna kenn ku nekk ku ca bokkul woon da nga ngir jëw woon soo ne woon ci adduna ñu di la siso ba sa yaram lépp def ay lawtan doomu aadama dafa ñëw fii ci adduna ngir jàng ak yaru war naa jàng lépp lu mu doon xam lépp lu mu doon xam nag la muy jëf ak la muy bàyyi ndax bis bu fekkee ne xamu ko ba ñu réeral ko ci ceytaane bis na ci kanamam yawma yaqulul munafiqun wal munafiqatu lillazina amanu nuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran fadribu baynahum bisurin lahu babun batinuhu fi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab yunadunahum alam nakun ma'akum qalu bala walakinakum fatantum anfusakum wa talabastum wartakum wa gharratkum al-amaniyu hatta ja'a amrullahi wa gharrakum billahi al-ghurur bis bi ñuy dekki jullit ñi dekkiwaale seeni leer naafiq yi jekkeeg leer bu woyof ñu fay ko ñu nekk ci digg lëndëm boo xam ne gii ku yëkkati sa loxo doo ko gis bu keroogee boroom leer yooyu nekk ci seen kanam raw leen ñu di leen yooxu di leen woo ay waay geesu leen ndax seen leeru xar kanam yi leeralal ñu fi nu war a teg suñu tànk ndax dagg bi metti na ak par dagg bi rab yi metti na ak poussé yi nu di ci jaar waay waay leeralal leen ñu daal leen di diiju daal leen di ñaawal ne leen dellu leen adduna ngeen sàkku fag leer foofa lañ ko sàkkoo woon ndegam doomu aadama day feebar ba mënatu la yëngal benn cër xam ne yëkkati loxoom dong ba ñu ko tiim am yaakaar ci moom mënatu ko ak ci ba mu faatoo ba ñu suul ko ba mu ràpp ba dekki ba jëm ci pang ba wax dëgg yàlla booba kay ku ne xam na ne dellul adduna sàkkuwaat ak leer diiju la ñaawlaate la irji'u <laughs> waraakum faltamisu nuuran ba mu ko defee ñu dal di taxawal ci saa si miir bu gudd seen diggante miir boo xam ne la mu ëmb la ca biir xéewal gu dul dog la ak bànneex waaye la ca bitti muy la féeteeg naa saqiya mbugal rek la ba mu ko defee ñu tiit jàq dal di woote yoo ko ca kaw ngir njàqare yunaaduunahum alam nakun maakum ay waaye sarax leen nu waaye walbatiku mu ndax àndul woon ak xanaa da ngeen a fàtte ne noo yéen a àndoon di jaamu yàlla di jullee ko woor tey fàttaliku loon ne suñu seen mbokki jullit lañu woon fàttaliku leen ne noo dëkkoon démb ñu ne waaw waaw noo àndoon démb de waaye fooy ngeen seen bopp ba seytaane jommal leen dugal na leen ci musiba ngeen sikki sàkka ay mébét war leen ba mbirum yàlla dikkal leen seetaane nax leen allo lu tiis a tiis la yonente bi sallallahu taala wa sallam nee na ida ata alayya yawmun la azdaadu fihi ilman yuqarribuni ila allahi fala lii fi tuluwi shams dalika al yawm bis boo xamee ne fekke naa bis boo xam ne dollikuma fa xam-xam ci yàlla lu may gën a jegeel yàlla bis boobu yàlla yàlla barkeel penkatal jant loolu yàlla bu ma ko yàlla barkeelal li ñu njëkk a laaj doomu li ko gën a sooy bokk ci yërmande bu demee ci kanam tuuti daan waxtaane fi ko sëñ bi wax ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na man rahima rahima képp ku yërëme rek ñu yërëm la wala dabixat usfurin donte picc mu ñu rey lañu nga robb ko rek yërëm ko bis suñu borom dina la yërëm yow itam nee na benn jigéen boo xam ne dafa dëkk ci def lu ko neex yàlla fegal na ko safara ci benn xaj bu mu romboon mu tiim benn teen mar bay yàlkat mu dal di summi dàllawam soloon yeew ca musóor ga tëmbal ko ca teen ba génne jox ko mu naan mu delluwaat anqati ba xaj ba màndi mu bàyyi ko mu dem suñu borom jéggal ko la mu daan def lépp tàbbal ko àjjana am na ci ulama yi koo xam ne dañu ba mu gis nañ ko ñu ne ko nanga nga def ak sa borom mu ne sa borom jéggal na la njéggal bu yaatu waaye bi ma jéggalee ba noppi daf ne ma loo yaakaar ni moo tax ma jéggal la ma ne ko xanaa sama julli gu bari gi ma daan julli mu ne déedéet loolu taxul sama koor gi ma daan woor mu ne déedéet loolu taxul sama xam-xam bi ma daan tasaare di yee nit ñi mu ne ko loolu taxul balam xamoon jeex mu ne ko yow buur bi lu tax nag mu ne ko lenn benn bis ci bis bu tàng yaa ngi bind di taalif téere ba nga sëppee xadima nga ca daaji yëkkati ko weñ mar mar woo xam ne bu naanaloon keroog dee tak ca catal xalima nga di naan ca daaja nga yëram ko bañ a teg xalima ga ca kayit wa lu dul bàyyi ko ba mu naan ba màndi ba naawal boppam yërmande jooju nga ko yërëmoon moo tax ma yërëm la tey loolu moo tax sallallahu taala wa sallam ne masalu mu'minina fi tawaddihim kamasali jasadin waahidin idaa istakrat minhaa udwun tada'aa lahu saa'iru jismi bis-sahari wal humma jullit ñi ñu ngi demee ne jenn jëmm jëmm ji ci nekk ab cër nga ca jëmm ja cër bu ci tawat rek mboolem yaram bi dal di sibru dal di feebar mu ne jullit ñi ñu ngi deme ni ki tabax mool bu ci nekk benn jullit la ni mool yi jàppantee ba formé tabax bi ba mu dëgër noonu la jullit ñi war a mel mu ni képp koo xam ne aar nga jullit ci tiis yomal xiyaamee suñu borom dana la booleeg malaayika muy dox sa digg ak safaraw jaanama waaye képp koo xam ne takkal nga jullit lu ñaaw loo xam ne yaa ngi ci jublu rek yàq ko bu keroogee daañu la tëyee ci kaw jégganub jaanama ci kaw siraat ba loolee nga waxoon ci moom ak la nga ci moom lépp seey bat bat ci sa xol ñu soog lay bàyyi adduna bi nag bi ma ne ñaari yoon a ci soqee wii jëm fee wii jëm fee mu di ñaari kuréel ñoo xam ne bu ñu dañ mukk di bëre kenn ku ci nekk yaa ngay dimbali la nga la nga jëm la nga xam ne mooy sa wàll la nga xam ne ca la yàlla xiir la nga xam ne moo xew ca dëkk ba nga jëm moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne la tazalu taifatu min ummati qaimatan bi amrillahi la yadurruhum man xazalahum aw xaalafahum xata yati amrullahi maanaam ashratu saati kon du adduna yàqu-yàqu am na kuréel boo xam ne ak lu mu metti metti ak lu mu tiis tiis du ñu dem mukk mukk mukk di taxaw ci mbirum yàlla rek lu ñu néew néew kàttan ña nga cay def lu ñu mën du ñu jublu feneen mukk lu yàgg yàgg yàgg yàlla nag li mu bëgg mooy ku ko jox boppam ku ko jox sa bopp dana la fay fay boo xam ne bu keroogee da nga rus ndax bind la moom la ba noppi sañ laa dugal fu ko neex may la sa bopp ba nga xam ne boo yëkkatee sa bopp jox ko daf la caa amee lu njëkk ci baaxam la moo tax mu ne inna allaha stara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yàlla bind na jënd na ci jullit ñi ci way gëm ñi seen bakkan ak seeni alal lu mu leen ko jaayee ajjana moo tax jëmm ji nga xam ne dem na ba see boo jàngul sax waaye dem na ba jox boppam yàlla moo xam ci ñaari loxoy ab sëriñ la bu matut sëriñ wala anam bu mu joxe boppam boroomam wacc àdduna wacc lépp ngir jënde ko yàlla moom la ñuy wax faqir dañu ne nag nihayatul faqihi bidayatul faqiri faqih bi maanaam borom xam-xam bi fa mu dem ba yem fa fa tàmbalee ndax xam-xam mu tàmbalee ba àgg ci xam dem ba xam ne àdduna bi day gent te loo fi am da ko fi bàyyi te boo fi jógee kat noo fi gën a bari lee noo fi gën a bànneexoo la génneen wa gën a naqaree doomu Aadama ci lal ba muy deewe lu mu fàttaliku ci li mu moomoon ci àdduna wala fu mu a jaar rek dana ko jàppe ne la dana ko seexlu dana ko ragal dana ko tiit nga xam ne dem na ba xam loolu seet boppam nag xam ne amul genn kattan gu mu mën a musale boppam ci loolu mu ne ne seeti ku ko tane mooy faqir kooku moo tàmbalee fa nga xam ne fa la borom xam-xam bayam faqir kese ba ndax li am solo ci nit du dara dul xol bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am na ci jëm wenn suux woo xam ne bu yéwénee lépp yéwén waaye bu yàqu lépp yàqu doon jaamu lit ku ñuul ba ko sangam ba reyloo gàtt ba tane ko indil ma cër bi ci gën dafa indi xol ba ba mu ko delloo yónniwaat ne ko indil ma cër ba ca yéesit xol ba la indeeti kon xol nu mu gën a raxasoo xol ndab la lu ñuy taatal tabek suñu borom gi tabaraka wa taala mel ne wàmme wuy dotti ku raxas sa ndab ba mu set nga taatan ko yaay am ndox ka ko deful mu am ndox ci la jiitu nag ci lu baax raw na la dañu ne limaamu ahmad dafa solo ne sayidina abdurahman ibn awf ak sayidina xaalid ibn walid doon wàqante sayidina xaalid ibn walid ne sayidina abdurahman yéen day yi ngeen di jiitee ci lislaam tax nañ fab seen bopp teg ci sunu kaw nii yéen ñu gën ba wax joojee dee ba àgg ci nopp yonent bi sallallahu alayhi wa mel ne ku tàngat bàyyi leen sama saaba yi bàyyi leen sama saaba yi giñ ci kaame sama bakkan ci loxoom ne kenn ku defoon ci yoon wi la ci wuruf lu toll ne daju xut wala lu toll ne daj yi montagne yi doo jot mukk mukk jëfi kenn ci ñoom waaye sallallahu alayhi wa sallam dafa mas am mu ne leen muy wax saaba yi di leen laaj neen leen waaw ana jan aji gëm moo leen gën a yéem ñu ne ko xanaa malaaka yi mu ne a ah, malaaka yi ñu nga fa suñu borom ci leer lañ leen bind xamuñu lu dul suñu borom nu ñu mën nañu mën a def ba bañ a gëm ñu ne ko xanaa yonent yi mu ne yonent yi wax yi day jóge ca yàlla di ñëw ci ñoom ñooñu mënuñoo bañ bañu gëm ñan ñu ne ko boo xanaa nun saaba yi mu ne leen yéen it na ngeen di bañ a gëmee maa ngi nekk fi yéen waaye ñi nga xam ne ñoo gën a yéemu ci way gëm ñi waaye ñi nga xam ne dañuy ñëwi ëllëg du ñu ma gis du ñu ma dégg dul fekk ay téere yi ñu bind rek ñu gëm la ca nekk ñu ñooy kéemtaan yi mooy way xol boobu nit ci war ci dimbali ko tur yàlla ndax tur yàlla nee ñu moo mën seytaane waaye tur yàlla day bëreeg seytaane te luy bëreeg seytaane war naa bari ndax seytaane du yokkat mukk te yàlla kattanal ne ko suñu borom may ne ko mu mën a mu daw waaye deret ci biir doomu aadama fab ab joxam xam lump xolu doomu aadama di dugal ci bakkan ay jax-jax dugal ci bakkanam ay bànneex yu ba di ko tayyelloo di ko digum ñàkk di ko tiitu jëmee ci yoonu yàlla tur yàlla dong moom na a dàq seytaane mooy tax mu tiit ak fàttaliku dee fàttaliku bàmmeel fàttaliku yàggaay yomal xiyaam ala bi zikrillahi tatma innul qulub tudd yàlla dong bu bari mooy tax xol taxaw ci siraatul mustaqim yem ca sëñ bi nee na laa ilaha illa allah bokk na ci meññetam suñu borom wërsëgale la tawxid ga nga xam ne moom la aarifoona yi am xam ngeen aarifoona billahi ñu am tawxid lañu kon li koy may nit mat naa saxoo nee na allahu akbar ju bari màggal yàlla lay meññal ci xol alhamdulilah itam boo ko dee sikkar suñu borom dana la may nga sant ko taxaw taxawaayu cant ba jox ko xaqam te dana la jox kattanug yaakaar la hawla wala quwwata illa billahi daf lay tax nga wakilu ci yàlla joyal ko sa mbir loolu lépp lu ci nekk lu màgg a màgg la ci def hasbunallahu wa ni'mal dafay tax nga doyloo yàlla wékku ci moom wóolu ko jàppandu ci moom salaatu ala nabi day tax nga sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cofeel gu tar topp yoonam topp sunna astaghfirullah al azim day tax nga sax ci ragal yàlla tey wattoon teeg charte tuub yépp masal ko moo tax ñu ne ilzam baaban waaxidan tuftax lakal abwaabu da ngay saxoo benn bunt rek ba mu ubbi ko yàlla ubbi la bunt yi ci des yépp dañ tubaa wax na ci masaalikul jinaan wa yaa axil xibata wa riyamaa al ujbi wal xasadi wal kibri daa wa dama rahmati lil insani wa hubbi rifatin ala al aqrani fa kullu man jamaaha aw ihtawa wahidatan minha fa xaasirun tawa li annaha tujibu illa allazi amilo fal taxtani nee na yow sama mbokk na nga wattandiku jëw na wattandiku njistal na nga wattandiku naw sa jëf te nga bàyyi kañaan ak rëy na nga bàyyi ñàkk yërmande ci mbindeef doomu aadama te wattandiku sopp yëkkati ko ci say nawle féete leen kaw nee na jikko yu bon yi képp koo xam ne dajale nga ko wala nga am ci benn rek danga nga perte ëllëg ñu wax ci min hajul abidina ne juróom-ñaari asamaan yépp asamaan su ci ne suñu borom def na ci malaayika yoo xam ne dañuy fuuyee jëfi jaam ñi nit dana julli julli boo xam ne malaayika yi ci suuf yépp daañu ko sant matal na borom matal na rukoo yi ak sujjóot yi ak taxawaay yi ak ponk yépp te bi mu koy def teewlu na xolam ci yàlla bu demee ba ci asamaan su njëkk sa ñooña malaayika yi ca nekk jëw dong la ñuy seet buñ gisee ne borom jëf ji rafet na waaye borom jëwkat la lamiñam wa dafa takk ripp ak jëw day xasaw ca jëf ja dañ koy taxañ sànni ko ci bët asamaan sa ca topp malaayika yi ca nekk ngistal dong la ñuy seet ci jëf sa ca topp ku naw sa bopp rek sa ca topp añaan ba mu jeex mu ne cosaanal wax ji addis la woon boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam dafa waroon togg ku ñu wax Muaaz ibnu Jabal bi ñuy dem ba mu yàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teen xool asamaan dal di tudd suñu borom dal di ne Muaz maa ngi lay bëgg a dénk dénk boo xam ne boo ko wattoo dana la jëriñ waaye boo ko sànkee kat dagg nga saw lay sa digganteeg sa borom dal di nettali xisa bi ba mu àggee rek Seydina Muaz mënatu ko muñ dal di yëkkat jooy moo tax mu ne wax wa xadisun jaa an xayri rasul min ajlihi baka Muaz ibnu Jabal mabda'uha anna rasula sallallahu salliman alayhi rabbin jalla rakiba yawman murdifan Muaz mu jeex suñu borom azza wa jalla sant doomu aadama farata yonent bi sallallahu alayhi wasallam mottalee jëf yi sunna war a boole farata ak sunna teg ci naafila ngir suñu jëf mat sëkk waaye suñu borom na doomu aadama mënumaa jegeñ loo lu ma gënal def li ma ko sant waaye doomu aadama du dañ bu mu defee li ma ko sant di dolliku jëf yoo xam ne moo koy coobarewul boppam muy jëf yu rafet ba ma sopp ko waxtu ma ko soppee dama ko def sama xarit bu ma ko defee sama xarit damay nekk bëtam ya muy xoolee di loxoom ya muy jàppee di tànkam ya muy doxee di làmmiñam ba muy waxe bu ma ñaanee ma may ko bu ma santee ma defal ko loolu lépp dal tëmbeelu ci biir lu ñuy wax ihsaan al ihsaan mooy rafetal jëf mooy yokku jaamu yàlla yokku jaamu yàlla boobu la ñu tuddee tasawuf tasawuf réew mi umpale woon nañ ko ci bu duloon si Ahmadou Bamba daanaka duñu xam lu mu doon moo tax ñu ne yoon la woon moo xam ne dafa raafoon dafa ràppoon ba ñu umpale ko nit ñi dañ koo gàddaayoon ba kenn waxtaaneetu ko mu dikk sekkar ci ko ba mu set raxas ko ba mu set mu teg ko ci dëneer ba ñëpp jànloog moom mu leeral yoon wa ca jëm fii nga muy nit koo xam ne daj na ci adduna ngir topp boroomam loo xam ne mburu ma dañu ko ca taal ba moo tax ñu ne ko wa sabru ko faaqa sabra naasi xatta samawta bihi ila alal maqaami sëg muñ ëpp na muñu doomu adama ba nga yëkkati ko àndal muñ googu ba dem ci maqaama mu gën a kawe muy muñam guñ ko xamee ci tukki bi mu tukki woon ak gannaaw ba mu dellu see muñ ga mu amee woon it ba mu tukkeegul suñu borom dañu di fab tiis yu jëmoon ci mboolem jàmm ñi teg ko moom dong ngir nit ñi am jàmm mu am kattanu mën koo muñ ngir sopp boroomam mu di ay tawat di ay balaa di ay feebar di ay naqar mu di ko istidaadam dafa mat ba mu daataan def li ñuy wax alfarq daañu ci dikk mu di nit ko bi nga xam ne yàlla daf koo bind ngir mbir mu màgg a màgg mu daan dégg woote bi te xamul li koy woo fu mu féete moo tax mu daan waaxu waaxu mu daan waaxu rek ci àll bi bu demee ba mu yàgg mu ne tarfet jooy jublu feneen nee na booba li koy woo xamul fu mu féete waaye mi ngi koy woo rek muy dégg bi te ko yéene wuy ji muy def mu am ci métit lu toll ne sukuraat dee mel ne ku ñuy wàcc ci ruwaam léeg-léeg mu mel ne asamaan si dafa daanu ci kaw suuf mu nekk ci diggante bi waaye mu doon nit koo xam ne li ñu wax kaamil daf ko doonoon alkaamil dañ ne man laa yutiu nuuru maarifatihi noora warihi alkaamil alkaamilul muhammadi mooy ki nga xam ne wilaayam mat na wilaaya bu matee ni ma waxoon ne ci saahir noonu la jullit ñi mel ci ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax mel ne jënn jëmm ku ci nekk di cër cër bu ci metti yaram yépp feebar wilaaya ci boppam noonu la mel te wilaaya noonu la doona ci nubuwa di ab bànqaas ci nubuwa nga xam ne borom wilaaya bu mat ci ba mat ba mat ba àgg ci uzma day mel ne ndox mu sotti ko ci géej gi géej gi mooy lan mooy nubuwa mooy secret suñu borom bi nga xam ne dara génn ko loolu moo tax mu mën ne jaamu naa suñu borom tabaraka wa taala ñetti junni at te tënuñu ndax jàng ngeen ne leeruk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko suñu borom bindee ci juróom-ñaari géej la ko tëmbal géej gu ci nekk nekk na fa di sabbal suñu borom ci xeetu sabba woo xam ne moo ko njëkk a sabbal te moo koy mujj sabba lu ko xuquban mooy ay junniy junniy at te boobu yëpp suñu borom xoolaate bi ko mu fekk roox anbiyaa yi ak awliyaa yi maanaam siddiqoon yi ak aqtaab yi génn ci loolu moo tax ñu àttanoon yan bi nga xam ne suñu borom daf leen ko daan teg muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi mu tawatee ba tawat ji metti ba àgg ci dayab metti ba mënatu la dox dégg na nodd gi muy woote bi yàlla amatul jam amatul sago yëgatul métit yëgatul dara waaye fekk kàttanu dem jeex na mu ne bëret mënu la jóg mu sukkandiku ñu roof ko alin ak fadl roof ko muy dox tànk yi rëdd suuf si di diri ko teewul mu dem sa jàkka ji julli kon noonu sëñ Tuuba radiallahu taala anhu tawat na tawat joj daanaka dem na ba mënatul yëngal benn cër ngir tiis mu ko suñu borom teg waaye bu déggee nodd dootu am jàmm day def bër bër bër bër def ñett ñett ñett ñett ñett ñett ñett ba mujj ne dañ koy nëbb nodd gi ngir bañ mu dégg ko ndax coono bi muy toggoo rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na waxtu wax suñu borom tabaraka wa taala nee na waxtu woo xamee ne ab jaam temp na jëm ci man ma waaxu jëm ci moom bu waaxoo jëm ci moom ma cal jëm ci moom kon gaañoo ñi nga xam ne ba kenn jógul la ñu jógoon jëm ci seen borom ñoo làq yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira gaañoo ñi nga xam ne ñoo ñooy nit ñi juddoo istixdaad judduwaaye defar gu yàlla defar ba mu mat ñu jaar ca yoon wa nga xam ne ñeent lañu danañ dem ba duñu yëgati ci àdduna dara lu dul suñu borom ku ñu wax rabi ibnu xaysam romb na tëgg bu ak weñam ba mu xonq weñ gi fàttali ko safara mu di xëm sedd guy ñu yenoo ko fa ndax rek keneen ku demee ne moom sooy na ab sooy ba mu xonq curr ci safara xelam dem ci boroom borom tabaraka wa taala dem ci màggam gi ak sañ-sañam gi ak kàttanam gi mu di duggal loxoom ca taal ba téye weñ ga ba mu sedd ku ñu wax dundul masri nga xam ne wàllu kaamil bu doy kéemaan la woon dafa xamoon Cheikh Abu Yazid Bustami Cheikh Abu Yazid Bustami moom la Ahmadou Bamba radiyallahu anhu di wax ci yaa rabbana ilayka ashku xaali ba mu ko yónnee ndaw la dafa bëggoon a xam maqaamam Cheikh Abu Yazid Bustami ndaw la mu yónni ba mu demee fekk mu toog daf laaj ne ko man de Abu Yazid Bustami laa bëggoon a gis Abu Yazid Bustami ci boppam ne ko ana kuy Abu Yazid Bustami man maa ngi ko bëgg a gis booba tey maa ngi bëgg a xam kuy Abu Yasid Bustami man xamu fu Abu Yasid Bustami féete mooy kan ndaw la daal ne ah kii dof la daal di dikk bi mu dikkee wax ko sunu muslim ne ko man day ka ma gis dof la nettali ko li mu wax mu daal xam ne dafa toll ci maqaamam xëy ba maqaamam xëy ba moomu daan ko waxtaane insha allah maqaamam xëy ba moomu moom la aarifoone yi di toll bala ñuy buñ ci jógee dikk ci shahada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 labal ko ba damay jéggalu sama borom loolee di muur xolam du dara